ca xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye fay di njiitum réew mi jamono ji moom nag ma ngay féexal njaboot yi bu ñu ko xaymaa nag lépp loo xam ne daal jëm na ci kilo ko suukar daan rek jar jamono ji 650 jàppale ni jàll na ci 600 maanaam wàññi nañ ci nag fukki dërëm lool itam seetu nañ ko rek ci loolee lu jëm ci liitaru ko diwlin ba ñaar fukki dërëm moom moo ca daal di wàññeeku jëm na nag tamit ci wàllu ko ceeb gi 410 francs la ñuy wàññee waxtaane rek maanaam nag jamono ji 40 francs yoo xam ne ñoom ñoo ci jot a wàcc source ay yéen kaay nag nañu euh, la nga xam ne daal Serigne Ngondu ak Koromak jotoon nañu ko rek dige daanaka euh, jëfe nañu ko waaye nag am na rek euh, ñeent yoo xam ne daal ay ponk la yoo xam ne ñoom ñooñee jàpp nañ ni matalewuñ ko bokk na ci rek jamono ji lu jëm ci jëwrin bi gàlloo lépp ci wam ci wàllug jënd ak njaay moom moome kenn gisu ko fa waaye tamit secrétaire général ba gouvernement ba rek moom moo fa taxaw rawatina conseil national de la ñoom kenn laaju leen seen ak xalaat rek yi nga xam ne daal ñoom ñoo ko sekk yéen kaay bi sax des ci xam ne ni direction du commerce intérieur tam moom kenn boolewu ko rek ci li nga xamante ne ni moom la ñu jël daal di ko def na gën a démb bés bi le jour yéene kaay nag nañu tension bi dafay wàcc maanaam nag fitna gi wala boo ko coow li ci euh, jom ci lu ni mela subvention ba euh, dem na nag ba ci juróom fukki milliards ak ñett lu jëm rek ci wàllu ko njëgu dund gi le jàppale nag ni ginnaaw tabaski bi li rek dañu ko fas yéene jëmmal bu ñu sukkandiko ci euh, suñuy naataango loolee bokk na ci itam loo xam ne l'observateur yéene kaay xëy na ne ko fàng ci xëtamu njëkk moom jàpp na nag ne jamono ji daal ah, njëg yi la ñuy des rek ah, di ah, dëfale askan wi bokk na ci nag loo xam ne nguur gi def na ko démb lépp loo xam ne nag wàllu ko acteurs yi la ñi nga xam ne daal ñoom ñooy yëngu ci wàllu ko ak njaay tam desandi nañ di ko waxtaane diggante seen ak njàkkare ak la nga xam ne daal moom la ñu ci gis ne loolee dana dox ci mbir mi la tribune yéeni kaay moom gisewu ko noonu ndaxte nag nee na jamono ji daal wàññi teef gi dafa mel ni daal amul benn yoon bu ñu koy xayma ndaxte daal dërëm kott la la ñu daal di wàññi ci liitaru ko dawlin ba jàpp leen ni ñetti dërëm la ñuy waxtaane ca mburu ma ñaar dërëm ci lépp loo xam ne yokkuteef la mu gis ko ci jëm ci wàllu ko ceeb bi bu ñu ko xayma ak prix bi nga xam ne daal moom la ñu daal di homologué beneen nag jafe-jafe tam na ci rek lu jëm ci wàllu mburu mi yéenikaay bi nag des ci xam ne daal ne yëf yi daal dañu xam ne ne wàññi nañ ko mais dafa mel ni dañu rek sëlëm askan wi bu ñu koy xayma jàpp leen ni wàññiteef la rek ci marché bi nga xamante ni boutique yi nga xam ne ñàkk nañ yërmande lool ñoom ñu des di ko contrôler ndax lu ni mel ana rek fan la jëm bokk na ci laaj wi nikaay bi dal dee samp le peuple yéeni moom xëy na wasaare rek dërëm yaaka fukki dërëm ya ci xëtam mu njëkk nag nañuy ni mel daal euh, furaas dara mënuñ ko cee gis daal ci lu jëm kanam jàpp leen daal ni lu daal askan wi ndax nañu leen ngir rek euh, daal di jëmale kanam consommateur ba jàpp leen daal ni wàññite fu ko njëg bi le daal du leen lu dul rek ay naxe mbaay bokk na ci tamit loo xam ne daal pouvoir bi def na ko ci wàllu ko achat ba jàpp leen daal ni Ousmane Sonko tam la tax teewul rek ci bile ndaje bokk na daal lu yéenikaay bi samp na gi ni ab laaj lépp loo xam ne euh, jëm na ci Pastef ak naka rek la ñuy doxalee jamono ji lu Dakar waaye yéen kaay tam moom xëy na rek di samp laaj ndax yëf yu ni mel du ab naxembaay desandi nañ tam tey jii ne ko fàng ci seen ak xatu njëkk yéen bi nag di waxtaanee njëgu ko dund gile ak na mu wàññee ko ni mel ñu jàpp daal ne eh, fii ci Dakar côte la yem bokk na ci ak yeneen ko goxaan ci biir réew mi ñoo ñooñee dafa mel ni eh, kenn fulaalu leen kenn faalewu leen ci eh, jëf ci ni mel la loolee tam Dakar Times yéen kaay xëy na daal di ko dëxëñ tam di ñu xamal daal na jamono ji dafa mel ni saful yàpp saful jën jàpp leen daal ni fi ñu toll ni Euh, lépp lu ñu bëggoon daal bokk na ci daal ñu gën a sëgg ci loolee nga xam ne daal liggéeykat yi loolee la am ngir mën a wàññi li euh, di denrée ya waaye tamit gën caa sóob ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy yëngu ci wàllu ko ceeb bi euh, blé ak production de sucre ba lépp loo xam ne daal ñoom tam ñu nga ca ñoom ñooñee sàkk woon nañ rek ñu daal di leen ca boole wax ci enquête yéeni kaay mi nga xam ne nag desandi nag ñun ci benn ko coowal ak sinuwaa yile ab affaire la rek boo xamante ni daal bu ñu koy xayma bëri na ñaawte fi gis ndax te ginnaaw nag ba ñu demee fa mbaxana doone benn daal indien yile kenn mënu leen a gis fii ci Sénégal dafa mel ni ñoom ñibbi nañ fa ñu dëkk la waral nag kayitu ko kalaame ba ñu tekkee jamono ji ci ñenn ci ab actionnaire Sopra yooyu le bokk na ci yoo xam ne dik teg na dañ loxo waaye tamit ña ca jëlee ay loraange bokk na ci tam téeméeri conteneur ak ñeent fukk yoo xam ne ñu ngi koy wax waxtaane uh, ci biir enquête yéenekaay direct news moom dasaat ak ñun tey jii ci jafe-jafey taskati xibaar yeeg mbiru ko fiscalité ba jàpp leen daal ne bor yi lee desandi nañ daal la jox kàddu gi tey ji Ibrahima Fall mi nga xam ne moom émission d'avoir fiscaux la xëy rek di waxtaane loolee mënees na leen a jëmale kanam record yéeni kaay moom ci mbiruma tàggat yaram tey ji nag nañu bët yëpp daañu dem foofee ca boruka Allemagne euro 2024 tey ji lay tàmbali jongante ba nag euh, di Allemagne ak Écosse bu juróom-ñaari waxtu ca ngoon na jote jàppale nag ne ñoom ñii ñu duppee la Mannschaft ñoom waa Allemagne daal euh, ñoo ñu bëgg moom mooy def ko ndorteel bu euh, taaru ci wet gi record rek di ñu xamal ne jamono ji buñ ko xayma Angleterre ak France ñoom ñooñee taxaw nañ daal ni ponkal yoo xam ne bëgg nañ daal ne coppet biloo bi lekk raaya yóbbu ko ci seen ak dëkk benn euh, France moom jàppale ne Lamine ndañuy record yéen di xamal rek ne jamono ji nag jot nañ ko tabb def ko ndaw li gën a xarañ ci bileek saison donte FC Metz ba muy yëngu wàcc na ca deuxième division Aïcha li mooy lu yéen kaay xëy fësal ji. jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire lay jaajëfal. nga passer une très belle journée. merci beaucoup à Grégoire Ngom mbokk bu ko.